mbirum énergie boo eh, ci càmbar da ngay xol fan le président Macky Sall jëlee réew ba mu ci fi ñëwee 2012 dañuy xol li fi néwon ay plan yo xamni plan takal yo xamni dara takul won suñu électricité doyul won nit ñi di joy électricité ay coupure yu dul jeex ba vraiment yow bo bëggé lo xamni dina compléter pour nga liggéey il faut nga jënd ay groupe di jënd gasoil di ko consommer loolu nag président Macky bi mu ñëwee da ko fee jëlee ndax lan mix énergétique mooy lan mooy ni nga xam ne ni moom la ñuy jëfandikoo yi nga xam ni moom la ñuy toggee courant bi ñu ñu ñu ñu varier ko lu ci mel ni vraiment léegi mu indi yeneen mode yoo xam ne da ciy produire électricité muy les central solaires yi nga xam ne ni installé na ko muy li ñuy wax toolu courant yi ak li nga xam ne ni mooy vraiment centrale éolienne comme bu tey ba njaay bi nga xam ni léegi rek ñu commencé ko doxal donc loolu yëpp ak vraiment choix bi nga xam ne ni am na ko ci nit ñi nga xam ni moom la tànn dénk leen secteur boobu ku ci mel ni l'actuel ministre Mokhtar Cissé ak actuel DG bi nga xam ne ni de la Senelec moom aussi mi ngi ciy def lu mucc ayib nit ñi nag dinañ wax ni yokkute courant bi bi nga xam ne moo war a am décembre mais ñun dañ leen di leeralal que ni yokkute boobu du laal askan bi yëpp ñi nga xam ne ni dañu néew doole dañu ndóol ñooñu du leen laal te ñeneen ñi nga xamni ni dañ leen yokkal muy entreprise yi ak vraiment ñi nga xamni dañuy produire ay euh, secteur yo xamni dañuy employé ay nit li leen bari wul te ñu léral aussi que ni yok bobu waroon na am depuis 3 trimestres mu ngi ni te bobu ba légui pour ne pas appliquer la vérité des prix nguruk Sénégal jël na lu toll ni 89 milliards def ko diko supporter ndax rek pour yeureum askan wi waye tay nak li nga xamni ni mo am moy que il faut yaakaar am ndax fi nga xamni ni président foofu la jëm ñun xam nañ ko li nga xamni ni en deux en 2012 production électricité matul won 500 500 méga tay fi ñu toll ni ñu ngi ci 1200 méga li nga xamni ni ñu ngi koy waaj produire muy gaz mais kooku bu ñëwee dafa yokk yok suñu production li nga xamni ni mom lañ daan jaay électricité bi da fay gëna yomb ndax gaz mo gëna yomb li nga xamni ni moy gasoil mom la ñuy courant mom la ñuy euh, utiliser pour am courant leneen li ci top moy que ni bu nit ñi faté que ni 2017 président Macky Sall wan yoon na courant bi de 4 à cette époque il y avait plus de 25 pays yo xamni ñu ngi Afrique mën nañ ci citer Bénin Côte d'Ivoire ba. Euh, ba Mali ñooñu dañ doon yokk te ñun Côte d'Ivoire musoon nekk moom musoon nekk suñu référence ci électricité léegi fii ñu toll nii réew yu bari ñu ngi fëgg ci buntu Sénégal pour ñëw jàng ci ci modèlu Sénégal ndax xarañtewu président ak xarañte nit ñi nga xam ne nii mu ngi leen teg pour ñu euh, par exemple.